te neena na dara waralu ko lu dul suñu cofeel ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ko bëgg di nga bokk ak moom ëllëg ca biir aljanna yi moo tax nag lii ñu def am nañ ci yaakaar ndax moom yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa kenn ci saxaabam yi mus na ñëw ci moom mu ne ko yaa rasulallah kañ la penc di taxaw yont yàlla muhammad wuyuwu ko mu waxaat yonti yàlla muhammad yow kañ la penc di taxaw yonti yàlla muhammad tontuwu ko mu dàbbaliwaat waxaat yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow kañ la saa di ñëw yonti yàlla muhammad ne ko yow li ngay laaj bu ñëwee lan nga ko waajale من واجل مقدار صوب ليو سيدنا محمد ينتي الله محمد دادي وقت صحابة باب يو دي تخينغا ندخ اللق يوم القيامة كيبو كو خمنا ممغا صحب بغكو يو وق مم يني بوكو دكواي موي المرء مع من أحبه nee na saxaaba bi ñu wax ibnu abbas radiallahu taala anhu nee na ñun saxaaba yi ñun ñépp am nañu mbégte bis boobu am musuñaa bég mbégte gu toll noonu ba bis bi ñu duggee ci diine bi ba tey musuñaa bég mbégte goo xam ne toll na bis bi yont yàlla di wax ne almaru ma aman ahabba ndax wóor nañu ne ñun ñëpp bëgg nañ ko te ñu ngi julli xamuñu julli gi ndax nangu nañ ko walla nanguwuñu ko ñu ngi woor koor gi ñuy woor xamuñu ndax nangu nañ ko walla nanguwuñu ko ñi yore ñi it ñu ngi génnee adaka xamuñu yit ndax nangu nañu walla nanguwuñ ko waaye ñun daal ñun ñëpp biir nañu ni xam nañ bëgg nañu sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nee na bis boobu ñun ñëpp kontaan kontaante koo xam ni musuñaa bég mbégte gu toll noonu ceerno nee na ñun it ñaan nañu yàlla subhaanahu wa ta'ala yal na yàlla def suñu jotaay bii ñu yëkkati ko ba mu bokk ak jotaay ñu soppoon sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ba ëllëg yowmal qiyaamati ñun ak moom ñépp ñu bokk benn jotaay amin sallallahu alayhi wa sallam nee na lii nii rek mooy gàmmu nag